waaw tam dama foofu dama fi benn alerte laay def rek quoi ñu maire yi nga xam ne dañuy profité wu ci moment pandémie bi pour def na ko su dul noonu xam nga Barthélémy Dias bi mu waxee ñun ñëpp dañ doon xaar li mu doon wax mu def ko mais gis nga à notre grande surprise bi ñu paree nit ñi ñu ngi doon xaar 100 kilos 100 saako ceeb mooy ñaari 50 mais ñëpp gis nañ ko ay saako 25 kilos la fa teg teg fa benn nen benn lan loo xam ne moyen de 15 000 francs la si nga ne xaw ma centaine de millions ngay joxe xam nga yooyu c'est pas normal te moo gën a xam ne foofu mu dëkk ay am na cité résidence yoo xam ne soxla wuñ ko sañoo leen fëgg sax di leen proposer yenn yi kon dama bëgg ñoom ñëpp ñu delloo si waat seen xel. mais est-ce que du acte bi itam rek moom moo gën a rafet. Hein? acte bi maanaam def jéego boo xam ne dinañ xam ne au moins seen mère yëg na leen d'accord naa ci acte bi. mais xam nga bu dee conseil municipal bi daf la voté benn budget cent et quelques millions nga ne yëpp ci denrée nga koy def rubrique yi nga xam ne da nga ko da leneen la woon yëpp nga jël ko def ko foofu mais da nga ko foor def. xam nga ñu ñëpp gis nañ mu wane ko moom ay saako vingt cinq kilos def benn tablette nen benn bidon dëwlin ñun ñëpp gis nañ ko est-ce que loolu lañ doon xaar dañ doon xaar ñaari saako cinquante kilos doon xaar bu bu baax mu nekk quoi mais 25 cinq vingt cinq lu ko nit di doyee nañ waxante dëgg loolu ñun ñi nga xam ñun ko def parce que ay responsable yu normal lañ amuñu fonction loolu ñun ko mais doo jël askan war ko jox askan bi ne ngay de presse après nga comme le maire c'est-à-dire ba mu ba léegi defagul dara depuis ba ba amul kenn ko gis lu mu ah budget boobu kon fu mu ko dugal. non non dugalu ko mais ñoo ko war a toppatoo nit booy dem bay wax da ngay bàyyi ba pare parce que da nga am conseil municipal ngeen d' accord ci lépp nga wax boo waxee rek dafay jëf day mën a weesu day day mën a am da ngay wax tey jëf sa suba si mais depuis bi nga defee sa publication wax si télé yi wax ba ñëpp ne abandonné ah, nii mais après jusqu'à présent dara amul ah ñu ne gisuñu dara gisuñu lenn lu fi loo xam ne def na ko fi mu jëm ci loolu mu jëm ci wàllu ceeb boobu gisaguñ ko gisuñu ko dégguñu ko.